نفسي وديني lu ñuy sante suñu borom ci alhamdu moo gën a spécialité moo gën a jagu dañ koy sante ci sukkuru suñu borom dañ koy sant ci xol ci sukkuru ci làmmiñ ak ci jëf waaye nag di ko cant cantuk xamdu ci xol bi ak ci làmmiñ bi cantuk xamdu jëf bokku ci te cantuk sukkuru xol la ak làmmiñ ak jëf mboolem nag xeetu cant yëpp moo tudd léegi ci alhamdoog ak sukkur lépp sëñ bi da ko dëxëñ ci biir xasida wakaan xaqan cant na ci cantuk xol cant ci cantuk làmmiñ cant ci cantuk jëf hamdul xalbi wa lisaan waaye nag def ci li ñuy wax attaaddusu bi niamati temps bi moo ñu ko maywul waaye sëñ Tuubaa tudd na ci biir wakaan xaqan juróom-ñaar fukki mbir ak ñaar yoo xam ne wax taaddusan bi niamati wax suñ borom may na ma naar fukki yooyu ak ñaar mooy li mu bayti wakaan kon لولا ليرنا euh, اذهب فورا لسوانا كل من ليس يكون موطنا يا ذا ثمن اذهب فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا دسما كن بقنا كنتني وكان حقا سنجد سر سورة الإخلاص صاروا ما أك مفهوم با أك منطق با أك مهنا با خم وكان حقا لب توحيد يسال الله نيات البرم جزاء من جل حن المثال لي خابة ما خابة حن المثال في يعني من خابنا كون أبنا ولف دي أمنا دي أم مثال كن يا من له الخلق كما الأمور يا مخن أحد عن دمير لب توحيد سبحانه هو الكريم والحميد يب مجال سون برام لا كل مكان حقن توحيد جلير نني نشينك بس الإيمان الإسلام الإحسان لب مد مم بكون تبا من كبير مكان حقل وقت ما هو ما يلوم ديكو لير خلل أحتيتني الجميع دون طلب ولتقود السهلة وقت الطلب نبير دينكو يفيري دفيري جميع بي كل شيء بيفيري توت سوز توت سوز جاكو ما لب تدوكو ريكي fekk bayit bu ko bëggee firi da ngay xool siyaaxu bayit yi ko jiitu sëñ bi dafa njëkk wax ne sunan hadith wal furuha kal kitaabi an illazina imtanahum min matabi yàlla na nga ñongal alquran ak hadith ak bankas furuha yëpp bankaso ci alquran ak xadis na nga ñongal walid ñi nga xam ne dañoo bañ tuub ɓeydo co topp rafihu bi irfi al kitaba wal furuha mahal ahadis siha saburo yàlla yàlla nga yëkkati ci man alxuraan ak hadis ak furuha yi banqaasoo ci alxuraan ak hadis soog ne ah te cim jamiha jox nga maam mboolem seen muy alxuraan ak hadis ak furuha boobu kon aljamiha googu day dellu ci ñett yooyu donte nag sëñ Tuubaa sunu borom jox na lépp waaye boo bëggee firi baytu sëñ Tuubaa da ngay xool aaya ko jiitu léegi li mu wax wakaanaa xan ginnaaw bi ne xas yi rek cant da ci tagal yonent bi sallallahu alayhi ci kan di wone ay ay diko tag di wone ngeenelam di jayanti ak mom di wone ne moy wasilam barahatul muxtaari laysa takhfa ila alaman bi nakaan yukhfa xoolal lu ko gëna neex ci tag huwa an annabiyu wa rasulu wal xalilu wa huwa al alxabibu wa yakutirul xalil bayit yi la ci nek ci tag kenn mu ko misal الله اكبر كن لول ييب مينتي بير خاسين وكان xasida واخنا سانك wax ني كنت tamit فرت continue sortu lixlaas mi ngi ci même yàqu lisla yàqu lixlaas lépp mi ngi ci nga xamne ne bàyyiwu ci dara kafa ani man malahu kufan kufaan ahad bi li xëyri saha kulma jihad akramani bi khulhu huwa allah ahad rabbi walam yakun lahu kufan ahad nga xamne ne bi mi waye mafhum bi ak man tokh bi timit mi ngi ci foofu dama ci gàttal noonu rek ñu ñëw nag ci laaj bi ma laajoon mooy euh, njëriñal njëriñi nekk ci xasida wakaana xaqan lépp lu wax daa nekk ci cant cant li muy jariñ mi ngi ci wakaana xaqan ndax xasida ak cant la cantuk sukkur ak hamdu ñaan lu muy jariñ mi ngi ci biir xasida wakaana xaqan ndax xasida ak ñaan la diyaal ak yàlla lu muy jariñ mi ngi ci xasida gi ndax xasida wakaana xaqan xasida ak diyaal la najaytu kal yawma wa amsi raajiya wa li xadaytu dona sakin ajia kon may wane ne khasir munajat la njëriñal sur fi ikhlas min ci bir batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah moom itam ci bir motax tax sëñ Abdou digal ñu jang waqaan xaqan bi su jot wax ñu sax ñimmin ñi ko wax nga Sering tubaa mas naa woo sëriñ Modou Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Fallou ñoom ñett ku ne ñu jamante bayit kii jàng benn bayit kii jàng benn kii jàng benn ñu def ko ba xasida gi jeex sëñ Fallou nee nañ daana wax ne sëñ mas naa jox xasida wakaana xaqan ne ma dénk naa la nga di ko jàng nee Fallou ak magam baax ji بيد وي أبقى سلامي الكريم السامي حال النبي وسيد محمد تسنج بريبريسكو حال النبي وسيد محمد أبقى سلامي الكريم السامي نحن واحد نسنج تبع واحد نسنج لو خمني نيكو واحد كان نسنج سامسون برامريكا سنج بدانو خجانو بتشكو يا ركور جينا وتصبار ولا يور يور سنج بدانو خجانو أمنا بأن برام خم خم خمني أمورتيني لا نحن سايوم بيجي سنج تبع خسر وكان حقا لا يجانو 1993 sëñ Saliou woo na waa Ndoka digg leen ñu jàng wakaana xaqan si ñaanal seen bopp ñoom waa Ndoka boo gisee ku bokk daara Ndoka laaj ko loolu ginnaaw go sëñ bi waat leen diggal leen ñu di ko jàng ñaanal ci seen bopp ñaanal ci moom sëñ Saliou ñaanal ci réew mi wax na ne xasida gi lu waaye bëgg mën na la ko xëccal lu waaye ragal mën na la ko jañal daal di ne dinañ ko jàng suba ak ngoon te it sëñ Saliou mi soo ko toog xalifa ñël benn xalifaam la digaloon ñu jàng wakaana xaqan da koo bind woon mën ko bind moomu sëñ am satum sëñ soy bu yàlla na fa yàgg ci wér moo ko bindoon loolu lépp nag mi ngi jaaroon ci loxo yi sëriñ Abdoulaye Jaxate mi doon jàngale alxuraan ci daari sëñ soy bu kon loolu lépp day wane am solo gi xasiri gi am solo xasiri gi fu ñu koy jàngee xéwal daf fay xam ak jàmm xasida ko koy jàng suba ngoon doo ñàkk dépense lii moom mu jarab am na daayira mu jóge woon Italie siyaari sëñ Saliou wax ko seeni xat-xat ci réew ma nañu leen di sonalee ci kayit ak ramas sëriñ bi diggal leen sunu delloo ñu jàpp bis dajaloo jàng wa kaan bañ ko defee yàlla wu wuñul leen am na daayira wala mbooloo moo xam ne Amérique lañ jóge woon ñëw ci sëñ bi xamal ko ne ko jàngal jàng nañ wa kaan àqan million sëñ bi keroog daa bëgg ñoom jox leen café jox leen suukar ne leen àdduna bi yëpp xaj na ci ci lu wér nag li may bëgg a wax ne ci lu wér ci l'an 2000 sëriñ Saliou jàngaloon na wakaana xaqan am mbooloo fukki junni yoon ak ñaar 12000 wakaana xaqan koy jàng aajam dana faju ci àdduna ak alaxira waaye xoolal li sëñ bi wax yaa man jaxala haadihi al huruf ridaaka rida rasulika alayhi salaatu wasalaam yow yàlla yaa def xaref yii xaref wakaana xaqan arab bu ci ne di sa ngërëm di ngërëmal al yantibi sallallahu alayhi wa sallam lolou ko gëna reey waye waaye yu furax tajamihil mu'minina wal mu'minat araf bu ci ne ya ko def muy mbektem kep ku gëm yàlla ku góor ak ku jigen khasir wa kana haqqan sirub kun da ca nek yaqulu li kun fayakun yakun haaji min ka bila haqqi wala tahaaji sirub kun min ka wa kana haqqan motax mu ne barakta li yaram fi hurufi wa khayriha wujudta bil mahruf barkel nga yow barkel nga yow sun borom sama araf yi ak lul yi asaluhu nag kawnatihil xasida xaariqatan li aadatin mufida man sëñ Tuubaa damaa ñaan xasida gii di xasida gu xotti xarbaax waaye xasida mufida xasida gu am njëriñ sëñ bi weeral meeral xasida gi ne xasida gu nangu la xalal li si jaa bi ahtil kalaam salli wa sallim wala tataqabal sal kalaam sal kalaam gi mooy xasida ak wakaana xaqan gi kon wakaana xaqan mi ngi noonu nee na mun na xalaa xaarisil uruf bi maa yafuqu danna min mahruf na nga xéewale kii jàng araf yi lu kawe njortam ci ay teraanga ak ay njekk waaye li naasi mil xaruuf xadaju baax loolu sëñ Tuubaa boo xam la ci ñaan way araf yii na nga ko saxaral ak tonoo yaa man kafaahu daal ko doon wan baax xasid abakaane xaqan wax nañ ne képp ku ci am aajo di ko jàng ngir bëgg mu fajo bu ak ci mun na ala xayri seen xaruuf ñaan fa loo fa ñaan foofu mu fajo foofu nag danaa ci wax dañuy faral wax ne kuy jàng xasida bul fas sëñ bi ñaan na lépp wér na waaye sëñ bi moo ne fan wi maa siixta hinda xiraati xasida min xasaayid yi tajjud incha allah fasal yéenal saa yooy jàng sama xasid yi yéenal lu la soob da nga ko am incha allah kon nag bu ñu bëggee dàq fas gi day mel ne dañuy wuuteeg texte texte boo xam ne sëñ Tuubaa ko bind te man li ma gëm mooy texte ab texte moo ko mën a toxal waaye wax mënu ko toxal تفني مع شيخ ده عند قراءة خزيرة من خزيرة تجد إن شاء الله لول سنج باقوة كون لما يوحد سبا كان حقا دال نيكو خام خام نيكو آه، نيكو ريري ريب نيكو ديگنا تي سرين علي جوب قدمة من يدندو من ينك دخار موجيث دائرة مقدمة القدمة منه ديگنا تي سرين صعيبو سن صعيبو نه سن صعيبو نه مولم خيولي ما أمتي تأدنا نجي نيكو جيس maa ngi ko amee ci wakkaane xaqan alaxira gi ñu jëmit mboolem xéwal yi ñu fay séntu maa ngi ko amee wakkaane xaqan di sëñ Aliou Diop booba ko ne tamit nga xam bari na kon nag xasida gi ku ko jàng ba mu saf ci yow nga jikko woo xasida yi da nga am banneex boo xam ne nii rek moo koy xam mooy bànneex ba sëñ Tuubaa di tudd xanin tafat madri wal balwa bi fat li mux nin li xaadal xul waax waaye da nga am infihaal ak ijaaba ci barkeb ajab te nii jawaab man taxaala xam si na waxutta li infihaala infihaal googu bu safee ci yow loo bëgg a def def ko waaye da nga dugg ci gisaa man jàlla xëy na misaali lii xaadama xaaba xëy misaali boo ko dee jàng ba def taxaloq ci moom da nga raw say morom tayit nag bu defee boo defee taxaloq ci xasir gi da nga mucc ci shirk ak nifaax tayit nag suñu borom dana la jox minax yooyu sëñ Tuubaa di tudd ci biir wala yaqud minaxa googu muy wax saaqa makaar yi لمن خبل نها مدرسي ولا يخذ منها كدف تخلق شي خسير جي فاو لول دنا دوك سي واخ وا بغنا توتي رك دا خمغا سيرن توبا بيرم لي تخ مانام كيب كو خامني جانغا رك سيرن توبا دا فلاي خاوا جاخال موي نيمي بيندي مانام ماتالغي سي والو هاروت اك بيان مو تخون ما بغنا نيو 3 مينيت رك 7 مينيت سي بلاغاب خسدغي سي والو بلاغا وا خمغا والو بلاغ بي دا فا رافات آه، دا فا نيه سيرن بي لوسو مالا يخم لا سي ديف waaw sëñ bi def na ci euh, jinaasa baat yoo xam ne dañuy nuroo ni ñu leen bindee ci yàq te bokkuñu li ñuy firi ci maanaa sëñ bi def na ci iqtibaas iqtibaas bu leer nañ ñi la ci sëñ bi def danaa teewlu bayit wi léegi nga xam ne walan googu suñ borom di wax ci alxuraan walan yaj'ala llaahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabila nga xamne moy ñi gëm deug deug ñi nga xamne seen gëm yàlla matna na yi duñ am yoon ci ñom sëñ bi ne wala xutta walan bi walan walan googu dafa jàpp walan insha allah li kayfin ala alama min sabil nga xamne batu walan gi bokul ci xasiida gi batu alquran la sëñ bi def ko iqtibaas dana tewul bayit yi waaye foofu la mujjé ci walan kon yooyu yëpp xétu rafet rafet la ci walu balaaxa ci walu mahna ci walu badi batay ci wàllu numérologie sëñ bi da ci def lu yema yéeme ci euh khasida gi xoolal bayit bi yaqudu li kun fa yakun aaji min ka bi wala tahaji bayit boobu boo ko adadee lay jox 1022 mo tolok 66 allah ba muy fukki yoon ak juróom-ñaar allah ya rahman ya basiru khadir ya rahim ya nasiru moom itam boo ko adadee da jox 175 مي فكيون اجروم ولي يلتي فتري على بو هو الاله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الاثمان بيد وو 903 لا جوخ 129 لطيف وا سبت لا جوخ نافح يا كريم يا معين لتجيب ويعمن مام دا لاي جوخ 2275 مالا جوخ 175 ولي لطيف فوا 3 دي خامني موي احد كون خاسيدي دا فخ دل ا أه... تي انام ييب غيسغا نصرتني فإنك النثير moo tolloog waliyu shakoor gis nga xasiida gi doo kaa naqan sëñ bi indi na ci date de naissance am sëñ bi mi ngi gane àddina 1272 hijri je signe et je précise ñu ngi wax boo demee ci minu boo demee ci irwaaw nadim da lay wax ne sëñ bi mi ngi gane àddina ñii nañ 1270 ñii ne nañ 1272 waaye boo demee ci téere bu ñuy wax an nubsatul mubarak téere boobu la sëñ Mahamad Lam Diop Dagana mujj bind téere boobu moom dafa insisté ci 1272 yi sëriñ dafa def environ dans les années 1270 waaye damay joxe preuve buy wane ne sëñ bi lu mën xew 1272 la gane àddina ñun ñii kenn ku ne dégg na sëriñ Abdoulaye wax nettali ne sëriñ Touba. bi mu defee ixtikaaf ci jàkkee daara xudus ji yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu ko feeñee dana ko ñetti weer moo tee am ñeent fukki at te xudus man daawuñu ko fal ku mu amul ñeen fukki at waaye yow tey dañ lay taxañal loola waaw léegi bu fekkee euh, sëñ Tuubaa mi ngi gën a àddina 1270 xew-xew ba ba amoon itikaaf ba cent 1312 la kon loolu ñaata at la defal calcul bi 42 ans la kon wax jooju yàqu kon sëñ bi cent 1272 hijriya la mën a gane àddina mooy tax wax jooju sax waaye bu dul loolu kon wax jooju sax ndax at moom moom xaama bay soseen la boo demee ci diwaanu dem 1312 la wax ne ci la sëñ bi def itikaaf yi ci jàkkee daal xudóos yi kon bu dee 1270 rek fekk na ko mu am ñeent fukki at ba teg ñaar cent 1272 la ci ci muharram la la sëñ bi gane àddina sëñ bi at mi wàcc liggéey weer bi mu wàcc liggéey ci la gane àddina ndax it bu fekkee ñuy wax ne sax baan la sëñ bi gane àddina mu ne ko ñetti weer te boobu weesu nañ sax baan ba dugg ci weeru koor bi kon ñetti weer yi amatul maanaa kon gis nga waliyu sa koor gii sëñ bi indi moo tolloog 1272 moo tolloog nasartane fa innaka nasir maxaw taxay bi innakal basir gis nga xaaja bay doo rek boo ko aradee 920 la moo lay jox fukki mahamadu kon xasiidi gi dafa fees dell ci anam yëpp waaye xasiidi gi sëñ bi da cee def itnaab ci asalaam xalal na bi wasilati muhammad yi ab xaa salaamil karimi samari salaam googu bi salaamil mudda bi da ci def itnaab itnaab ci wàllu arut ci wàllu balaa xalaat ak bayaan sëñ bi da koo def ci biir xasidi nga xam ne xasidi gu rafet la gu fees dell la ci walla yëpp gis nga naajeytu kol yow ma wa am si raajiya wali xadayta doona sakkin xaajiya moom itam bayit wa doy waar la bayit bu yéeme la li ci nekk yëpp mënu su ko wax na ñem foofu jërëjëf sëriñ Basiiru kon ginnaaw waxtu wi mat na te xam naa ne feeg ay ati atet faaw ñuy ñëwaat rek euh, dañoo bëggoon nga dénk mbokk taali bi nga xam ne ñoom ñooy seetaan lan lañ mën a jariñoo ci mbindum sëñ Tuubaa mi waaw mbindum sëñ Tuubaa euh, liñ ci mën a jariñoo bari na hmm, xasiid gi mën nañ cee jàngate ne hmm, problème lu mu jafe-jafe-jafe problème lu rëy rëy ñaan mën naa doon solution bi adduwaaw silaaxul mu'min ñaan mooy gànnaayal jullit beneen addis ba ne adduwaaw muqul ibaada ñaan mooy yuurub jaamu yàlla am ñu sax ñoo ne addis boobu sax daxiif la waaye adduwaaw xool ibaada la yonent bi wax ñaan mooy jaamu yàlla kon nanu fonkaat ñaan bu baax a baax te xam ne Sëriñ Tuubaa am njàngaleem yëpp enseignement am yëpp da ko jaarale ci biir ñaan bu ñu ko jàppee ñaanu kese kese waaye sëñ bi ci biir ñaan gi da ci defaale solution danaa ci joxe exemple ci biir Mawaahibu Naafi sëñ bi ni mu bëggee aw jigéenam mel ko ak aw góoram mel ko da koo wax ci aw bayit raaxi rijaali xisni nisaa yi raaxi rijaali xisni nisaa yi mu ne yonent bi mooy sàmm aw góoram waaye mooy tatal ay jigéenam sëñ bi daa dugal foofu enseignement sëñ bi dafa bëgg aw góoram di génn xam nga sàmm li ngay sàmm ab sàmm boo guddee bu bëccëgee da nga koy jëlee ci kër ga yóbbu ko ci àll ba mu sàmm bu ngoonee mu ñëwaatam bu ngoonee mu bu ngoonee mu ñëwaat kon loolu góor ñi ñoo ko lu tax waxul loolu ci jigéen ñi xis din saay la wax tata tata benn barab la barab bu dogu ñu dugal la ci biir waaw kon sëñ Tuubaa ay waxam ak i mbindam ak i ñaanam yëpp enseignement da cee nekk kon nañ fexee xam enseignement yooyu jaare ca Euh, defar société bi jaarale ca résoudre solution yëpp loolu daal laay wax ci gàttal ci wàll boobu ñu xam ne daal ñaar man na lu ne. jërëjëf kon ñu fàttali ne ñu ngi woon fii tey ci Boukhatoul Moubarak kër Serigne Bassirou Touré doon waxtaan ci xasida ak wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin ñëwaatoon ci ñaareelu xaajub xasida gi tam wax ci wax yu am solo yoo xam ne kenn ku nekk tey jii duy nga ci ba fees kon nga tàggu ñu lay seetaan ngir ñu mën a dem ba beneen yoon. jërëjëf ñoo ngi eh, sant ñëpp eh, di gërëm ñëpp di ñaan yàlla tasaare barke Wakana Haqqan ci réew mi tasaare barke Wakana Haqqan ci jullit ñi tasaare barke Wakana ci taalib yëpp ñoo ngi leen sant eh, di gërëm di wax wa axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf mbokk yi doon seetaan ñi ngi woon fii ci Bourkhane baraka nekkoon ak Serigne Bassirou Touré ñu doon waxtaane xasida wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin kon xasida de la semaine wala al alxasidatul usbuuya mi ngi leen di tàgg ba beneen ay bis wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh وزاغ مكاره لمن قبل نحى مدرتي من يخرج من أحاب ملك الملك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوقت لي في رمضان النجزاء نفسي وديني سماني والولاء ومسكن لك وديعة نبات وكفى يا ما يا ففيهما أن في الرزايا واضرب سبع نار عن جملة من بيأتى لخو من أبناء زمن وجملة الإخوان من مخارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إلا الوضع بني آثم تولني ولا تكني لي عاد وارم جميع المسلمين برا وسلم وسلما مدام